gan gi Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor ñu ngi lay nuyoo. ñu am mbégte dalalaat la ci matinalu Rewmi FM tey euh, tàmbalee waxtaan week dialogue politique bi président Macky Sall la woote euh, lan moo ci seen position ndax Ousmane Sonko bëgg ngeen mu wuy ji. ma doyul ba mu war ma oo ma wuyi ko parce que moom dialogue bu muy wax noonu lan moo ko waral c'est parce dafa am lu bëre. dañu xalaat ni yëngu-yëngu bu am Sénégal te ñëpp dañu bëgg Sénégal bu nekk ci jàmm mais yëngu-yëngu boobu yëpp yëpp yëpp boo seetee ba seet kenn kenn laa wax ne ku tudd Macky Sall mooy responsable bi parce que le fait que bu bëggee doon candidat pour élection yi di ñëw moo indi jaxaso bi yépp te Macky boobu boo gisee ma ne ko kat doom dooyu ma ba ma koy uyu mooy lan bi ñu koy fal deux mille dix neuf kenn dóoru ko kenn forcé wu ko kenn harcelé wu ko moom moo toog fii Sénégal jaakaarloo ak yenn journalistes moo moo dem États-Unis jaakaarloo ak opinion bi foofu moom moo dem ba France jaakaarloo ak opinion boobu kenn dóoru ko kenn forcé wu ko mu wax ci ay kaddu yoo xam ne yu leer nañ nii moom mi ngi ci dernier mandat pare na ci te Sénégal dépassé na fu ñuy wax fu ñuy waxaat ay affaire troisième mandat même ci période référendum bi 2016 wax jooju la yoroon bu fekkee Macky boobu moo tollu tey ba mu bëgg amaat beneen candidature wane ni moom ci boppam respecté wul kadduwam ba mu jural ñu ay quatorze mois ay fukki nit ak ñeent dee ngir lan bëgg bëgg Macky doon candidat ci loo xam ne moom ci boppam. xam na ni du constitution moo ko ko may du loi moo ko ko may du éthique moo ko ko may du moral moo ko ko may du kaddoom sax moo ko ko may parce que kaddoom si boppam sax moo njëkk a weddi loolu bu fekkente ne Macky Sall moom moo tollu tey hmm. dem ba jaaxle dina dafay wootee pour dialogue defe naa weesul yabel opinion bii la d'accord man noonu laa ko gisee dama ko gis comme provocation la sax. Hmm. provocation dafa mel ni kuy mooy lan def loo xam ne moo ko tey ba pare mu ne la ñëw leen ñu waxtaan. Hmm. moo indi ma ñàkkal fayda appel boobu bu desoon Abdou Sané tout court. damay ñàkkal fayda boobu appel parce que man nit bala ma lay uyu dafa fekk nga mat nit nit bala ma lay uyu nga doon ko nga sam sa kaddu mais nit koo xam ne faalewu sa kaddu yow bopp nga bëggoon ba ñëw faale sa kaddu kooku boobu xanaa man maa bëggee yàbb sama bopp wala lan. Hmm. moo indi ma am position bu leer nañ boo xam ne su desul dara lu dul Abdou Sané position boobu damay ñàkkal fayda woote boobu. te franchement du ma du du du ma ci teg leneen ko fayda voilà. d' accord loolu mooy sa xalaat euh, leeral nga ni Pastef itam waxagu ci euh, société civile bi ñoom wéy di ci wax ndax euh, ku mel ni Alioune jàpp na ni tey dialogue dong moo fi sës ak fi réew mi toll ndax itam am na ay waxtaan yu société civile bi tàmbali wala ay tànki jàmm yu ñu dox ngir yolomal yëf yi ndax ñoom ñoo njëkk woote sax ngir waxtaan am ñu waxoon itam danañu ci def ay jéego pour que Pastef mën a wuyu ji ndax société civile bi ma nga cay jokkoo. koog xam nga Sénégal lu ñuy wax société civile bokkul ak lu ñuy wax parti politique société civile moom dafa am rôle kenn ku nekk am na ni la ni nga mel ak si ngay jublu ñun man su may wax damay wax en tant que parti politique ñun suñu décision dépendrul ci société civile dépendrul ci keneen suñu xalaat bopp moo ñu doy ci loolu lañuy sukkandiku pour jaar bi wala jaar fële. waxtaan bi tey bu naroon am waxtaan bu simple la képp koo xam ne dëgg boo tax nga jóg jaakaarloo ak Macky nga won ko ni Macky tey boo jëloon simplement dikk ak sa baat bu ndaw bi yëkkati ko ne bokkatuma ci candidature bi jàmm na ñooy c'est simple comme hmm. problème bi yëpp benn nit la te nit kooku il faut mu nangu ni moom moo nekk source de problème tey lu ñuy wax ci problème Sénégal yëpp ba mu am ay fukki bakkan ak jent yu rot benn nit rek moo ko causé mooy Macky Sall xanaa kay bu fekkee yow da nga jóg nga gëm sa bopp am loo ay yeneen calcul yooyu def nga gëm ni jàmm moo tax nga jóg pour Sénégal te nga xam ni ci indi problème bi kii la te mu la ni am na benn kaddu boo xam ne bu ko waxee doo soxla réunion doo soxla. dialogue ay regroupement bu ko waxee simplement dina doy nañu jàmm ne ñooy. mais hmm. jaaral foofu c'est simple. d'accord loolu leer na alors ñu wax ci leneen seen leader euh, Ousmane Sonko yëgle euh, barki démb ne la mu doon jort dëgg la te mooy doon ko bëggoon a faat keroog ba ñu ko amee lu ñu ko sotti ci li mu wax ndaxam am ngeen fu wóor fu ngeen ko teg wala ndax mën nañoo xaar ay preuve yu kenn mënta dàq ndax gouvernement bi tàmbali naa dànqaafu justice noonu porte-parole gouvernement bi ñaawlu ay tuuma yu teguwul fenn yu mu yëkkati teg ci kaw du takk der yi itam nekk lu rëy ndax bëgg a faat ba kan tentative tuuti euh, ndax xam mën nañoo xaar lu kenn dul weddi Ousmane Sonko indi ko. Ousmane Sonko bu mu duggee ci langue politique ba léegi Ousmane Sonko heure bu mu jël page Facebook am di publier wala mu jàkkaarloo ak ay journaliste pour mu wax lenn la ñëpp mun a seede mooy toujours dëgg lay wax mais fii Sénégal kuy wax dëgg doo mës a avancer parce te mu ñu di déglu nit ñi waxkat dëgg yi problème yi mooy lan Ousmane Sonko daf lay wax tey dëgg nga gis ni ko weddi tey bu ëllëgee rek démb bi fët donc loolu moo waral bépp kaddu bu Ousmane ko wax téye ko comme mooy dëgg amul benn intérêt moom ci contexte bi pour mu wax loo xam ne amul beneen élément bi boo jëlee même contexte bi ñëpp ñu jege soo Sonko tey ñoo nekk di faat ñoom la ñu nekk di faat boo jëlee du ñoo dem na ba manifestation bu fa am ordre bu ñuy joxee toujours mooy tirer leen à balles réelles bu te ne beneen parti bu Sénégal foofu dañuy leen jël leen liif wala ndox bu tàng wala ngeen daxante ak xale yi moo indi bi joona toujours bilan lourd lay am jëlal Ziguinchor bilan bu lourd la la dernière victime mooy suñu jeune bu jaabi bii nga xam ne dañ ko tirer à balles ko te dara amul nga jël les deux soldats la ñu ngi nii ba léegi lu rëy lu mel ni ay militaires nga xam ne servir nañu le pays nañu seen bakkan le kenn ki faatu kenn ki ba léegi kenn xamul fa mu nekk du Macky Sall du gouvernement bii du hiérarchie armée ñëpp ne takk mel ni dañu ñàkkal fayda bii boobu dañu ñàkkal fayda famille bi ñàkk yërmande famille bi am na leneen lu mu niroo c'est-à-dire que culture de l'assassinat mi ngi commencé di développer wu fii Sénégal boo nekkee ci contexte bu mel noonu bu fekkee ñu jegee Ousmane Sonko la ñu nekk di assassiné lan moo mën a tere léegi ñu assassiné Ousmane Sonko ci boppam parce que Ousmane Sonko gars yi ko jëm a xeex sur plusieurs angles fii la ñu fekkee année boo xam ne yaayam deful dara bokkul dara ci quoi que ce soit ay gendarme dem harcelé ko këram bi Ousmane Sonko di dénoncé leen lu ñoom ñoo njëkk a jóg ne loolu amul amul amul yàggul dëgg feeñ ndeke loolu am na Ousmane Sonko ñu attaqué ko ñu ne salafiste la pour jaxase ko ak tarixaay yi affaire bi sottiwul Ousmane Sonko ñu accusé ko comme quoi dafa jege MFDC affaire bi sottiwul Ousmane Sonko ñu assuré ko ko dafa bokk ay force spéciale affaire bi sottiwul amul lu ñu ko tuumalul fii bi gars yi gis tuumal boobu yépp mosul marché te Ousmane Sonko day gën a jëm kaw lan moo leen mën a def lu dul faat ko donc loolu moo indi man ma gëm gën a gëm sax Ousmane ni nañ ko war a faat man même Ousmane bu ko wax man naa ko doon wax parce que lan moo mën a jàpp nit ki nekk ci biir otoom nga défoncé portom toj ay vitrine génne ko ba pare nga ne da nga koy dugal sa auto par force sotti ko produit ba pare nga ne loolu yëpp ci sécurité bi nga koy def ñaata sénégalais ñoo fi am 17 millions de sénégalais pourquoi mu doon Ousmane Sonko kese moo vivre expérience boobu nañu wax dëgg. c'est que Sénégal fii waxkat da ngay ñëw barewul parce que lu gars yi di calculer moo bëri aussi donc pour loolu Ousmane ko même bu ko waxule yow mi war nga gëm ni loolu moo am te léegi bés dina am soo ko dafay jaakaarloo ak yéen mm. mu tegal leen ay preuve expliqué leen ni affaire bi yëpp demee te di ngeen gis ni effectivement Sénégal léegi tollu la foo xam ne bu fekkente ne amuloo argument pour nga mën a euh, kii discuter ak sa morom arme ngay jël léegi pour rey ko. Hmm. bu fekkee léegi foofu la dem toll. nguur mu jaral ba nga rey sa morom nit. je me demande finalement boo reyee ñëpp kat ngay servir boo doonee président. Hmm. alors laaj bu mujj bi mooy seen maire Ziguinchor ba yëngu na lool la xew mooy takk euh, wala liggéeykat ya euh, ñooy euh, ñaxtu ngir yokkute salaire boo xam ni état lañu ko déggool maire ba doxalu ko ay affectation am ñu di ko ñaawlu ndax am gàllankoorul foofa dara ci na yëf danga may may dara xam nga fu mu ne nii ñu ngi doon waxtaan man en tant que homme politique. Hmm. le propre de l'homme politique mooy lan dafay nekk partisan dafay féete boor heure bi su ma naree wax loo xam ne mi ngi jëmale ci côté Pastef ma bëgg ci jaxase ak loo xam ne mi ngi jëmale côté maire yi ñii di may déglu bu ñu def la nuance ak différence bi mooy indi kaddu bu ma mënta wax tey ci affaire maire yi dina indi beaucoup plus de confusion que muy leeral problème am na loo xam ne Ousmane Sonko daf ci comme sa tere. dafa gëm ni mairie bi ñun ñëpp ñoo ko bokk doomu Ziguinchor yi Pastef waa Pastef ñoo ko bokk mais mairie bi ñun ñoo ko bokk te lu ñu bokk ñun ñëpp am na heure boo xam ne mun naa taxaw pour wax loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mais am na heure boo xam ne damay moytu par respect waa Ziguinchor parce que tey wax neexul dinaa fi wax lu tuuti gars yi léngalee ko léngalee ko ak sama appartenance politique te dinaa mettre mal à l'aise sax moo maire le président Ousmane Sonko. moo waral ma proposé la lii. Hmm. bu fekkee affaire mairie kese nga bëgg. na ma invité en tant que conseiller municipal. Hmm. amul benn question boo xam ne dinañ la ko interdire. lépp loo xam ne moo la soxal poser question nu mu la neexee tontu bu leer nga ci am parce que mairie bu Ziguinchor je serai très à l'aise pour wax waxu mairie. d'accord leer na may wax politique du ma nangu jaxase politique ak mairie boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. sans considération partisane. leer na nangul nañ la loola itam jërëjëf waxtu wi sax dab nañu beneen laaj xaju fii ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM. merci matinalu Rewmi FM.